commune bu Touba Mosquée nag niki démb doon nañu amal ab daje ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di conseil municipaux yi ngir waxtaanee mbir moom jamono ji mën nañu ab information bu yees la kii di maire bi di Abdou Lahad Ka di fësal ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dafa yëkkati yeneen ci ay ndombay tànk yoo xam ne nii maire bi moom moo ko waroon a jël te joxoon ko yeneen doomu aadama daal di koy delloo maire bi Touba te yooyu la ndombay tànk yi nga xam ne nii jëlee woon nañu ko ci maire bi daanaka moom moo sooxeeloon lu jëm ci wàllum liggéey bi bokk na ca loolee delloo ko li nga xam ne moo di marché bi abattoir bi yi ak yeneen mbir yoo xam ne nii mën naa génne ay koppar ba tax commune bi di fonctionner normalement. comme li ma leen di leeral tey rek la bu fekkee ne dañoo nekk ci conseil municipal bi yàlla dogal ñu dem ba mu yàgg am loo xam ne dañu ko dafa nekkoon ci yeneen loxo ñu delloosi ko ci suñuy loxo te ñun conseil municipal bi yëpp wax naa ne ne woo informé leen ne leen lii ak lii ak lii ak lii kat dolli ko ci li ñu ñu dénkoon nan lañ koy doxal ginnaaw loolu moom Abdou Lahad Ka di fësal wan yoon la ñu fas yéenee jaar ñoom conseil municipaux yi ba mën a def liggéey bu am solo boo xam ne nii doomu aadama yëpp daan ci mën a teg seen i gët. bëgg naa bu ñu defee commission yi kenn ku ci nekk na xalaat fii ba fukki fan ak juróom ci ban commission nga xalaat ne bii commission boo ci demee danay liggéey nga xalaat ko boo ñëwee nga bindu ci commission ci diggante bi nag boo fi amee jot mën ngaa ñëw ci bureau bi maanaam bindu ci commission boobu. bu ñu dajee nag dañu ñu nommer président commission yi fekk bureau municipal bi waxtaan nañ ci ñu nommer président commission yi commission yi tàmbali liggéey liggéey. ci njeexitalu wax ji moom Abdou Lahad Ka jàpp ne ci liggéey boobu boobulee nekk na lu fas yéenee sensible ndax laaj mbirum koppar ak itam lu jëm ci ñi nga xam ne dañoo nekkul woon ci yoon ngir ñu delloowaat leen ci aw yoon nekkul loo xam ni dana fas yéenee yomb waaye lu mu ci mën ci doon. ñu commission boobu dem def tournée ci lu mel ne centre commercial yi. maanaam wax ak station yi ñu waxtaan ak ñoom li nga xam ne mooy àq yi nga xam ne mooy àq askan wi tañ war koo fay te nga xam ne wax dëgg yàlla du loo xam ne nii lu ñu lu le lu le luñ amul la luñ war a mën a fay la te jaadu na te dëkk bi laaj na ko muy àq dëkk bi ñu dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ne leen da commission yi wax commission bi dana fa dem kenn ku ci nekk ku fi yor centre commercial rek danañ fi dem wala station station yi danañu jël commission bi ñu ànd ak agent trésor public maanaam ak cadastre dem mètre mètre case surface yi nga xam ne occupé nañ ko ci waa public yi maanaam li nga xam ne war nañ ko ci fay ñu fey ko ci. kii di maire bi di Abdou Lahad Ka mi ngi ñaan ci askanu Touba ñu daal di jàpp ci liggéey boobule ba dëkk bi mën a gën a jëm ca kanam.